ju Baba Maal mi nga xam ni ah. mook Papa Thione Balago sekk ñu bokk génération dañuy yàgg yàgg lool mm-hmm. yàgg demlante yàgg dikkal dikkalante moom la ñu amal ci euh, ligne bi El euh, Hadj Baba ñu ngi lay nuyu di la massawu te di la jaale lu ñu bokk Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan Sen TV mm-hmm. di nuyu sama jigéen Abi Euh, ak képp koo xam ne kii soppee coon seet nga mais nag maa ngi rafet rafetlu sincèrement plateau bi ngeen def nii parce que ci jamono bi ñu toll nii ñun dañu war a joxe un exemple joxe un signal fort boo xam ne mi ngi dem ci Sénégalais yi won leen que ni ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla boole ci sunu génération macha allah lu rafet donga moom ma sa xew ci suñu diggante te sincèrement au fond de nos cœurs mooy ci suñu biiri xol ñun loolu lañ doon dund moo tax yàlla lafal ñu cat ba tey lu rafet dong dong dong la ñu mën a waxati su suñu biir maa ngi jaale waa Sénégal yëpp di jaale commencé ko nag ci président de la république moom la teg yàlla teg ci boppu réew mi mm-hmm. may jaale ki nga xam ne moom mooy bugaan mi taxawal li nga xam ne ci foofu ngeen di yëngutu moom itam mooy koo xam ne ki rakk la xarit la soppe la jàmbaar la itam ci li muy def di rafetlu itam képp koo xam ne ki yaa ngi liggéey foofu ci béréb boobu ndax lii dong la ñu mënal coon teg ci ginnaawam mhm. ñu feesal li nga xam ne moo doon mébétam feesal li nga xam ne moo doon ittiyam feesal loo xam ne itam moom moo doon euh, leçon yi mu doon jox sénégalais yi ak africains yi ak adduna bi ci biir am coon nag mën naa wax ne ñàkk nañu waaye ñàkkuñu parce que moom macha allah di mu waroon def def na ko avec sincérité avec euh, vraiment nekk nit koo xam ne da nga gëm yàlla. li muy wax même su demoon sax ba mu lay yedd yow soo mënee nekk magam baa nga nekk papaam mbaa nga nekk nijaayam baa nga nekk xaritam baa nga nekk doomam daf lay yedd. da koy wóor ni moom ci yàlla ak yonent bi la sukkandiku pour yedd la donc du ci am benn arrière plan. wallaay ndeysaan. loolu mooy coon mhm. mais coon dafa nekk koo xam ni au delà par exemple du musicien qui est formidable musicien. Mhm. un formidable compositeur wax naa ko waxaat ko. man koy kàllaa way rek laa xam. bu ma dégloo coon seet damay xam ne kii c'est un immense un excellent chanteur. parce que mélodie bi muy woyee dafa fees dell ak ay ay harmonie wallaay coon musul woy ba mu fóose génn gaam gi déedéet bu yóbboo adduna bi fees dell ak coow ak tëgg sabar ak guitare yuy dem ak incité moom fi mu nekk rek foofu la nekk parce que woy la xam te da koy woy ci ci ci ci harmonie yu wóor yu sûr mhm. yoo xam ne dafay dugg ci biir xol foofu ngay xam ne ne artiste xam nga artiste mën nga yor jikko yu bare bare bare nit ñi naan xëy na lii mooy sa jikko lee mooy sa jikko waaye boo yëkkatee sa baat naa nga jël instrument nga ci yëkkati dinañ xam ne ndax kii xol bi lan moo ci nekk. wallaay ndeysaan. képp koo déglu rek nga ne ndeysaan xamal ni kooku xol bi dara nekk ci lu ñaaw lu nekk loolu moo nekk ci xolu Thione Seck. wallaay nag dafa nekk koo xam ne ki sénégalais mën naa wax ne xamuñu ko woon bés yu mel nii nag mooy tax ñu xam doomu aadama. parce que dina tax doomu aadama dellu gëstu ci nekk ne doomu aadama bi gëstu ci ay œuvre am gëstu ci taxawaayam gëstu itam ci doxalinam mais yéen maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que ñun mënuñu am ñu weesu yéen ñoo xam ne ñii bu mu retrouvé ci ñun ñoo xam ne def nañ ko ci suñu génération sama génération laay wax nag di remercier génération boo moo ñu jiitu ak ñeneen ñu ñu jiitu parce que ñun dañoo sukkandiku ci ñoom ñoom góor gi sàmb jabari Samba waa ensemble instrumental ñoom Lallu Keba Dramé ñoom Samba Diop Leele ak ñeneen ak ñeneen ñu ñëw nag yàlla xalal ñu yoon loolu ñun bi ñun ñoo gën ñu ñu jiitu gënuñu ñu topp ci ñun mais yàlla moo ñu ko defal ñun mais lappal ñu cat Youssou Ndour Baaba Maal Thione Seck Ismaïla ah yaakaar naa ni wax dëgg yàlla Sénégal yi yor nañu jëkk njukkal ak suñu jigéen Kiné Lam dañoo dem ba mu monté benn association tuddee ko benn loxo. ku si nekk ñu jox la responsabilité. loolu bokk loo xam ne bëggoon nañ gis génération bi nga xam ne moo nekk fii léegi muy diggante ñoom Waly Papa Diouf ñoom euh, euh, Sidi ñooñu ñëpp ñu roy ci li nga xam ne ñu xam ne avantage yi Sénégal moom mooy ñu joxante ñoom loxo ku ci nekk nag sa wërsëg yàlla moo ko yor. Mhm. yàlla moo ko yor. coon dama naan toog ba si yàgg mu ne waaw yow sama xarit waaye yow comme yéen moom am ngeen maison de disque waaw donc yéen am ngeen carrière internationale waaw mais man lii lii lii lii lii nangam nangam mais su mu koy wax ak une sincérité ak sofel boo xam ne amul benn jalousie coon musul am xaar ma yàlla sama diggante moom mm-hmm. musul am benn problème boo xam ne sama diggante moom yàlla nu moo ko defar parce que coon bi ma nekkee xale jógee Saint-Louis ma dem directement dëkk ji Pikine jërëjëf waa Pikine parce que Pikine li mu produire Pikine ak Géejuwaay li mu produire ci loo xam ne li mi ngi dimbalu Sénégal mhm. adduna ak jàll yépp xam nañ ko mais coon mu dëkk diggante tali bu bees ak Icotaf man ma dëkk tali bu mag ma ñëw yàlla def mu am sabab bu nekk suñu diggante muy sama jigéen bu ñuy wax Faat Camara mu boole maag coon ay dëkkandoo lañu ñu nekk ay xarit sincère ak Pape Seck bi ñu nekkee man ak coon mhm. daf daan dem naan yeewu ma dem kër ñoom parkam la ñu ànd dem kër coon yendu fa ba ngoon jot fekke ay répétition gis ñoom daara gisee gis ñoom day mari njaay gaaw lu ñu ñëw ànd ak moom ma fan ko mu faama te li li xam ne moom la ñuy def mais nag loolu jëp mi la lalu ci kóllëre mhm. buñ fa toogee ba tàkkusaan coon dafay jóg mu gunge ma ñu dem ba suñu kër tali bu mag ñu toog fa def teg suñu suñu suñu baraada suñu kaas ataaya huit ans commencé di jouer au niveau du Balakonon daf may jël man ma ànd ak ak Pape Seck ak ak Doudou Seck Doudou Kati Seck mhm. ñu ànd ak moom def Balakon ñëw toog coon di def ay performance ak bala ak ak orchestra Baobab ba cinq heures du matin quatre heures du matin bu tasee man ak moom ñu ànd ñu déposé ma man comme maa ngi jàngi école des arts ñu ne ma yow moom da ngay jàngi duñu yàq sa jàng olool ku respecté nu kóllëre boobu depuis nag bi ñu nekk ay xale mësaa ko wax waali waali ne loolu moom boobu la xalaatu leen sax ne di ngeen am ku mel ni man wallaay ndeysaan man aw ma sax ku xalaat ni dinaa am ku mel ni Umar Maal sama doom te Umar bi ma lay wax du fan su Baaba Maal fan su Thione Seck la bu ma saan dem penc bi day yegg si Thione nekk yow looy ah, def toujours mu nga foon dëgg la Umar Maal kaay toogal sama wet yow sa papa la Umar waaw doomu Baaba Maal waaw mu ne yow sa papa la yow toogal fii saa yoo dellu seeti dugg seetee si biir penc bi toogal sama wet bi ma gunge la ba nga jé ba nga ñibbi nga ma jëlal la oto nga ñibbi sa kër. dafa nekk koo xam ne kii su may wax si moom man naa wax mille et une chose yoo xam ne bu ci nekk si moom lu rafet la. mais loolu di si sama diggante man ak Thione Seck rek dafa nekk si diggante Thione sekk ak àdduna bi. un très grand musicien un très grand compositeur. un très grand chanteur macha allah. Mhm. mais koo xam ne ku itam depuis xam na ni woykat bi da nga am responsabilité boo xam ne bi moom dong lañ lay seede suba soo fi jógee te moom la ñuy seede woyu coonte boo teg dégg nga si dégg message boo xam ne ni doomu adama yi déglu nañ ko mais xamuñu woon ne nekk du wallaahi dëgg mu nekk koo xam ne que nag dama ko raw naw ci sincérité en matière d'amitié ma koy jaale waa Sénégal di ko jaale képp koo xam ne ki artiste la mooy artiste boo xam ne yaa ñu mag ci génération bi tolloog ñun génération ak artiste yu ndaw yi parce que coon def na fi œuvre boo xam ne bii man bi ma ko yëgalee dafa ni ma baaba balaa ma lay woo nga ñëw nga teg sa voix yi dama bëgg suñuy doom yi ñoom Aline Guissé ñoom Demba Guissé ñoom Kane Diallo ñoom Pape Diouf ku ci nekk si ñoom bu leen yàlla mën loo ñu ñëw ñu fekk ci ma fii ma jël œuvre bi parce que ñoom ñoo moom œuvre parce que œuvre bi c'est pour la CEDEAO c'est pour l'Afrique xoolal si coon di waxee mhm. bi ñuy def clip ma pend coon way na ma pend morceau boobu benn ñaar ñetti yoon mais reconnaissance su nit ki li ko yàlla may mhm. te accepté ko loolu ci coon fekk doonga laa ko gisee mu ni ma baaba dama bëgg ñu def morceau bi yow yàlla may na la da nga nekk le plan international man nit dama ci bëgg a def ay jéego yow laa ko bëgg a defal yow sama xarit nga sama soppe ñu def morceau bi franchise ak sincérité ak nekk un vrai professionnel yenn saa yi ma ñëw indi samay ay lox loxal xaal pulaar yooyu mun na ma déedéet mélodie bi nii la nii lay demee te pourtant man way kàllaale mais soon daf ma dirige si chanson bi mhm. ba ñu def chanson bi si boppam mu ne léegi nag pour def la le clip bàyyi naa ko sa loxo ci laa ko indi fii ci booru yéen nekk place village droit lii lañ koy defee lii laay sol lii ngay sol ñu defee ku ci boobu kooku sama xarit la coon nit la boo xam ne daf ma inspiré daf ma won ka yoon bi ma jàpp booba yoon bi mooy un musicien tu es un messager looy bind dafa war a am sens looy bind à la fin de la journée doo aadama yi lu ñu la bëgg bëgg bëgg dañuy laajte yow bi nga fi nekkee sa jamono bi ngay woy lan nga ñu indi loo xam ne mën nañ ko utiliser mu nekk éducation su ñun. lay dëgg. waaw Sénégal yëpp yore nañ ko njukkal. Mhm. man du xool leneen ci coon. lu may xool ci coon rek mooy contrat bi nga xam ne ñun dafa am contrat Youssou Ndour leneen lu mu mën ci def ci àddunaam bénéfice la yàlla moo ko may nañ ko ko ñaanal. Mhm. na ko lew. amiin Baaba Maal lu mu mën ci am mu def leneen loo xam ne ñu ñu ko koy fonkee mhm. yàlla moo ko ko ko ko jagleel. mais suñu contrat avec la communauté avec le monde mooy ñun ay woykat lañu woy bi nañ ko ampli remplir suñu mission ba nga xam ne luñ ci yëkkati wax ko yàlla na fekk nit ñi buñ ko gëstoo loolu loolu loolu loolu mooy lu nekk et ça on l'a respecté pour les Sénégalais dafa bàyyi ci benn héritage boo xam ne bi ma j'aimerais bien que ñun ñëpp ñu taxaw dem jël l'œuvre de Thione Seck c'est-à-dire que dans beaucoup de langues jox ko école yi ñu koy jàng. Mhm. parce que lu mu mës di woy. Mhm. leçon la de mhm. civilité la. dans dans la vie. wallaahi yaa ñàkk ki ñaan. donc Sénégal dañu ñàkk. mais nag nañ sant yàlla. ñu julli fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moom moo ni su ma lu ma la mën te yow doomu aadama da nga ma war sant. wallaahi dëgg comme yàlla moom moo ko jël jël ko ci waxtu bi mu ko bëggee jëlee. remplir loo ko mission ba nii ni ni ku doon am xel ñaar kan mooy Thione Seck xam nga exactement kan mooy Thione Seck parce que li Thione am donc n'importe qui moo koy am de mm-hmm. mais beneen devoir nag moom ma ñëw ci suñu ginnaaw wallaay dëgg dëgg la ñu ngi ñaanal soxnay Thione Seck ñu ngi ñaanal famille Thione ñu ngi ñaanal ay rakkam yu góor ak yu jigéen ñu ngi ñaanal képp koo xam ne ki yaa ngi bokk moom doon yëngatu ci ar orchestre am mais nag ñu ngi ñaan la suñu doom Wally Seck waaw yàlla moo ko teg ci kanamu jamono mhm. mu nekk xale ay atam sorewugul mu am responsabilité mu am loo xam ne bi ñëpp ñu ngi koy xaar def naa ne képp kuy sénégalais war nga daaboon ko commencé di muñal gone gi ndax gone la xale la war nga ko yërëm ndax li dal ci kawam. important ku ci nekk bu daloon sa kaw nga nga nga jaaxle nga sonn. war nga ko jàppale. Mhm. ndax responsable boo xam ne bu ñu jeex ko xool ci œuvre Thione Seck ñun ñëpp naan waa comme waa léegi fii incha allahu rabbi Thione Seck mbiram du mës a du mës du mës a kon nag loolu devoir la boo xam ne devoir la bépp sénégalais. Mhm. ñu dolli muñ. ñu dolli itam dawal compréhension. dawal aussi jàppale gone yi nga xam ne coon sekk mi ngi leen bay seen gannaaw ñu leen di ñaanal lépp loo xam ne lii seen papa yàlla xëy na ko si ay at mu doon ay mébétam yàlla na fekk xale yi ñoo ko yeggale amin amin amin amin amin yàlla na fekk xale yi xale yi ñoo ko yeggale amin amin amin te nag yaakaar naa ne xale yi dinañ ko yeggale parce que xam nañu kan mooy seeni xaritu papa xam nañ kan mooy seen mbokku papa xam nañ kan mooy seen naatangoo papa ci am nañu respect am nañu jom maa ngi nuyu nag tous les musiciens sénégalais di leen jaale di leen jaale parce que nag kon teg di jaale askanu que parce que bu ñu ñëwee ci ngéwél rek coon que nekkam doomu géwél remplir na ko am mille pour cent sax su dee mille pour cent am na wax dëgg yàlla remplir remplir na ko di la nuyu nag yow Cheikh hmm. xam naa euh, jotuñu toog kii ñu dara mais sama mbokk la yàlla moo ko def dëgg la sama mbokk nga yàlla moo ko xam naa ne xam nga ko man xam naa ko. wallaay dëgg waaw bu ne saar rek këli dañu dem ba nawle. wallaay wallaay dëgg la incha damay ñaax nag waa Sénégal yi. Mhm. waa Sénégal waa àdduna bi lu nit mën ci pérenniser na nga xam ne œuvre boobu Thione Seck def na ko. Mhm. génne ko pendant des années. àdduna nag dafa am des hauts et des bas loolu yàlla moo koy dogal. doomu aadama bu nekk nag 2006 ci la feebar ba Sénégal yi ni ba mal génn na àdduna génnul àdduna mhm. bi ma yegsee ñëw ci plateau euh, euh, Prince RTS coon laa invité mooy sama doomu ndey mooy sama xarit boo xam ne xam naa ni li ñu seq bari na lool lool lool mënu ma wax lépp ci biir plateau bi mais bi ma ko invité dafa ñëw rafetlu mu ne ah macha allah sama xarit bi daal euh, compagne am anglaise bi waa Angleterre yóbbu nañ ko euh, defaraat nañu vis yi seerewaat boulon yi defaraat ko macha allah ba mu yànji ba mën a dellu siwaat si ñun xam nga kooku amul ki ñaan. Hmm. lay dëgg la. waaw kooku amul ki ñaan ñoo xam ne ñoom ñoo bokk bokk génération bokk la ñuy def nga xam ni wujjee ak xiiro ak ŋaayoo dafa yomb. Hmm. mais nag ñun macha allah yàlla may nañu. Hmm. yàlla dimbale ñu. ba bi ñu ñëwee xam ne ñoo bokk jamono. saa ñu ma see dajee ci kër Elan Ndiaye. studio 2000 da nga yaakaar ne ñii ñoo bokk ndey ak baay maa ngi ñaax nag les jeunes artistes sénégalais nañu roy ci suñu génération nañu dellu suñu tarbiyu si ñi nga xam ne ñii li ñu am ñun dañ ko tarbiyu si suñuy mag ak suñuy pap ak suñuy maam ba mën a représenter la musique sénégalaise bu ñu ko defee ñun ñu jàppale leen wan leen buntu boo xam ne bi dinañ pérenniser vraiment yaakaar li nga xam ne moom mooy li seen mébatu Thione Seck amoon jëmle ko ci askan bi maa ngi di gërëm di leen santu di ñaanal jàmm di jaale vraiment Bougane parce que xam naa relation familiale ak oh. relation amicale ak Thione Seck di leen ko ñaanal yéen ñëpp képp koy liggéey bi vraiment maa ngi lay ñaanal yàlla jàmm ak sutura ak teraanga amin amin jërëjëf jërëjëf jërëjëf El Hadj Baba Mal kaddu yi rafet na te am na solo te kaddu yi am na coloré